jërë ngeen jëf ginnaaw ba ki nga xamante ne bi mooy Pa Abdou Ciss bi mu takkee xale boobu nga xamante ne bi moo di Marie Louise ki nga xamante bi nag Adamo ci la génn wax lu a a yàq rafet ba mel ni indo démb ba léegi gars yaa ngi koy partagé di ci wax lu rafet ñii di ci wax lu ne mais Adamo gars yi ñu déglu li ci Adamo wax gars yi xale bu jigéen bi mooy Marie Louise te waali di ko woy mu koy dégg fu ne muy joxe ay ndogu di maye ay téléphone di dimbali nit ñi moom laa dégg coojo bi nii muy ñaan njëgu ordonnance lu mu jëndee ordonnance sa ta tat tat tat ndeke internet baaxul photo Instagram yi li ñuy wane gars yi li ñuy wane ndeke bokkul moom njëgu ordonnance sax amu ko ah mais kilifa yow yaa dugal sa bopp parce que gis nga saaru xale yii rappeur ak activiste nan la mën a yoree xale ah, xale yu mel nii mun ta nekk dalay ngacc ba nga jeex ñii bàyyi leen ak joueurs yi ay Cristiano Ronaldo ak Mbappé ñooñu ñooy dribble di leen teg dënd ndax attan nañ leen ñii ku leen topp sa xaalis jeex de ñii liggéeyul teg dil la ni liggéey li jëndi xaalis dóor dàq xam nga ne ñii sa tat tat tat mais c'est honte Marie-Louise euh, euh, là tu tu es abaissé ton voleur là ah pourquoi kaane mare ma serbe